daal defal alxaaji sëñ Mbàkke Sylla mi nekkoon ci jataay bi naanal ko tawfiix sutura ak teraanga ak poche def dara ni koy baaxu di defee fajaru samedi mooy ànd ak yéen ci rixlatun ila daaril axira yaa la allazina amanu ittaqullaha xaqa tuqaati wala tamuutunna illa wa antum muslimun loolu la ñu sunu borom wax man mii di wax ak yéen ñiy déglu mu ne nu yéen ñi nga xam ne nee ngeen gëm ngeen na ngeen ma ragal bu leen faatu mukk te fekkul ngeen nekk muslimuuna waaw mu di kon ay leçon yu formation yoo xam ne mën nanoo dimbale ba ñu nekk ay muslimuuna te mooy nangu ne yàllaay yàlla moo yónni muhammad sayyiduna sallallahu alayhi wa sallam donc bi ñu weesu dañoon tolloon ci euh, yi nga xam ne moo wax doxoon diggante sawara ak aljanna ca seen werante wa ba yàlla àtte seen diggante ku ci nekk bég ci ñoom ñaar te sunu tomb mooy listub ahlul janna ak listub <laughs> ahlul naar listub ak listub ahlul naar dafa am liste waaw ñaari list la ni nga xamee ne léeg-léeg ñu ne concours sàngam noppi na concours sàngam noppi na résultat nga yaa nga ca buntu inspection ña bokkoon ca concours ba samp seenu xel ku ne xool ba xam bokk nga ci ñi amam déet ñi at mi wala ñu def bac mbaa BFEM ñu ne résultat yaa nga ca école sàngam wala sa sàngam wala heure sàngam la liir lire dañuy lire lire résultat yi waaw wala nga bokk ci vote yi nga xëy jël sa xob dem woteel sa candidat àgg ca kër ga jàpp Sud waaw waa Sud di joxe résultat yi ah ndeysaan ngay déglu sa waay ak bureau bi nga voté ndax daf caa am ndam wala amul ca ndam tabarkàlla loolu dafa amit list boo xam ne ca la tuur yi ñi nekk aljanna ñépp nekk ak list boo xam ne ca la tuur ñu nekk a ñépp nekk waaw loolu nag <laughs> affaire bu bu bu bu bu doy waar la te naqari firi ci mpinc sallallahu alayhi wa gaa yi nee nañ dafa ŋàbboon ñaari ñaari téere ñaari liste fa qaala lillazi fi yadihi lyumna haza kitabun min rabbil alamina fihi asmaahu ahlil mu ne leen mooy leen téere bii ma ŋàbb ci sama loxol ndeyjoor téere la boo xam ne ma nga jóge ca borom bi tabaaraka wa nee na ci la listub ahlul jannati nekk ne téere bii ma ŋàbb nag sama loxoob càmmoñ seet ca la listub waa sawara nekk listub waa aljanna ma nga ca seen tuuri baay seen famille biñ bokk tabarkallu hmm? waaw mu ne listu boobu noppi na duñ ci yokkaat kenn duñ ci wàññiwaat kenn mu ne ëw oh, waaw ba noppi na waaw fala yuzaadu fihim wala yunqasu minhum abada liste ba noppi na duñ ca yokkaat kenn duñ ca wàññiwaat kenn waaw ci ngay dégg na doomu aadama kon jaamu gi muy jaamu borom subhanahu wa waru koo def jaamu commerce déedéet comme list ba noppi na fa mu lay jëme foofa ngay jëm góor góor rekk ci des la waaw saxaaba yi nag loolu daana leen jaaxal lool nu laaj ko ku tedd ka alayhi salaatu wasalaam mu tontu leen ca seetetetet xam nga loolu bu nu ko déggee maag soxna njinde du nu ndékkiyee <laughs> waaw liste ya pare na liste ya pare na mu kon nag naka la nit di xoole morom ja ba dugal ca ca ba te xamoo ci liste bu mu bokk waaw xool nit rek boole ko ci benn liste ca liste ya waaw nan bàyyi rekk tabarkàlla sawfa tara isan jalal xubaaru afarasun taxtaka aw ximaaru ne nañu bayit la bu maam Cheikh Alxaaj Malik bëggoon lool sawfa tara izan jëlal xubaaru afarasun taxtaka aw ximaaru ndeysaan bëggoon na ko lool bayit woo mu koy baamtu rek waaw waaw mu ngoog ala xaal liste baa ngi noonu ñaari liste yaa ngi noonu liste nañ ko ba noppi ba tampo na ko def signature ci suuf nga xam ne des ci yokkaat dara des ci wàññiwaat dara ci ñaari liste yépp ay ndeysaan nañ bokk ci listub ahlil janna ndeysaan waaw waaw sunu mbokk ma eh, nekkoon ca wax sa xalaat ñu ko wax góor gi ci yoof te xaaj Malik Maodo woonul nenu daa wàccub liggéey yàlla na ko ci yàlla boole waaw ñuy yëglu wax sa xalaat ñépp a ko xam nu ngi koy jaalee mbokkam tabarkalla ak ki am di jàmmam ak groupe wax sa xalaat yépp tabarkalla ak techniciens yi su ma saan woote rek ñépp xam ne góor gi ci yoof moo woote waalaay ndeysaan balaa jeexal rek jàngal laaya mbaa salaatu ala nabi góor gi ci yoof yàlla na bokk ci listu ahlil janna isaan amin kon list baa ngi noonu ah waaw alayhi salaatu salaam daan ne nag list bi dunu ci yokk dunu ci wàññi waaw léegi nag saddidu saddidu dox leen dox bu jub te ràbbaloog seeni bokk waxaaribu jegee leen jegeel leen jéego yi waaw te wut lu leen jegeele fa jéego ya jëm ah mu ne def leen loolu rek yéen daal ku ne na dox ci njub na ànd ki bokkam fa inna saahibal janna yuxtamu lahu bi amal ahlil janna wa wa in amila ayu amalin ah mu ne waaw mu ne ki nar dem aljana maanaam ki bokk ci listub ahlul janna te list bi nekk ci loxob ndeyjooru yonent bi nee na ku ca bokk ci jëf yu rafet ngay génn àdduna ñun ca bokk ci jëf yu rafet ngay génn àdduna mu ne ah mu ne loo mën di jëf nag bala ngaa faatu bàyyi ko jëf-jëfi waa aljanna mu ne yow mënul kon ump nañu bëri li mu ne waaw waaw wa inna saahiba naar yaxtum lahu bi amali ahli naar wa in amala ay amal diisan faraxa rabbukum min al ibaadi daal di jàng laay ja fariqun fi l jannati wa fariqun fi sair waaw mu ne ki nar a dem sawara balaa génn àdduna jëf-jëf ju ko fa yóbbu ki nar a dem sawara buy buy génn àdduna jëfam ju mujj jëf ju jooja lay doon moo tax nit ñi di ñaan xusnul xitaam yàlla na ko yàlla may xusnul xitaam yàlla na ko yàlla may fariqun fil janna wa fariqun fis sa'ir waaw rawawu ahmad wa tirmisi wa nasaa'i albani nee na wér na ba dema ci sayxul jaami moo nekk quatre-vingt-huit muy addis boobu ma doon jàng tabarkalla sunu góor ga alxaaj ibrahima saaxo jàngalekat boobu te nekk pédagogue seet <laughs> na bu baykat bi di bay ñu ne waaw muy dafa am lu ñuy bay ñu tudde ko suuna ñu ne ko waaw mu ne dafa am ab gattax bu cay am ñu ne ko waaw mu ne gattax yi nag ñaari xaaj dong la ñu ne ko ban ak ban mu ne gattax ba jëm ca sàkket ba ak ba jëm ci sébbu ba ëw waaw xaaj Ibrahima sax mu ne ñaari mu ne tool bi day am gattax ci ñu xam gattax ñu ne ko waaw mu ne gattax yu ne ñaar rekk lañ gattax ba jëm ca sàkket wa ak gattax ba jëm ca sébb ba ba jëm ca sàkket wa dañ koy sàkkete buntu ba dañ koy sàkkete kër gi walla néeg bi mu rafet tabarkal la mu ne ba jëm ca sën ba nag dañ koy xamb taal ko ñaari gattax yu doo nga fi am yow mu ne te kenn du fekk ki bayoon tool bi muy sàkkete ab gattax nga naan ko lu tax wala muy lakk ab sébb nga naan ko lu tax ne sañ-sañ boobu la borom subhaanahu wa sañ ci ñun fariqun fil janna wa fariqun fi sair ci waaw yàlla na nu bokk ca fariqun fil janna ñun ñëpp ñun ñii di wax ak yéen ñiy déglu ak ñun ak ñu ñu ko yéene ñun ñëpp rek tabarkàlla ba ñëw ci beneen tam bu professeur muy aljanna qariba luy loolu mooy aljanna dafa jege aljanna dafa jege dafa jege dafa neex a dem hmm? yonent baa ngay wax ci hadiis ba aljannatu aqrabu ila ahadikum min shiraaki naali wannaar mithlu dalik Ah, waaw axrajahu albuxaari wa ahmad an ibn masudin ba dama sayxul jaami ma nga ca mu nekk 31 15 yonente ba daa wax ne aljanna ni mu leen jege moo raw ni leen seen waraw dal wi jege boo solee carax waaw boo solee carax ni la ni la waraw wi waraw yu jege waraw wi mooy ñaar yooyu li jaar ci diggante ba baaraam bi mooy mbakkanu dàll wi ñaar yi jàdd ni ne ñoo am ci ay waraw waraw dàll noonu nim la jege ni la aljanna jegee ko raw waaye ni la sawara jegee it nag moo ko raw waaw moom daal boo ne pochette rek <laughs> dugg nga bu yàgg waaw rek dugg nga bu yàgg waaw ba tax sunu boroom boroom coobare gi moom mi xam lépp umpulewul dara nu dëkk ci di ko tooñ bu doonutoon baalekat nëg ni kenn disul ci kaw suuf moo ko wax walaw yuaxisu llahu naasa bi dulmihim walay ndeysaan de kon bët bu set bu nu xëyee ba la ñu jul tàkkusaan rek am groupe bu dem ndax tooñ nañ ko mbokk yi ñuy dégloo tabarkalla ci biir réew mi ak bitim réew nunu def ijtihaad mooy bu ñu sonnati bu ñu sonnati bu góor sonnati bu jigéen sonnati te bu kennaw li ngay def bu kennaw li ngay def bu xan kenn xeebal kenn la muy def ginnaaw nii la mbir mi demee waaw ginnaaw mbir mi ni la demee nanu góorgóorlu ngeen góorlu waaw la ndax ñu mën a am xéewal gi yàlla di xéewale ña jaar ca njub ga am ngërëm la te mooy jannatu rahmaan maa ngi ci rixlatun ila daaril axira maa ngi ci tomb bu tudd wasful janna melal aljanna ma ñëw ci beneen tomb professeur mooy xuffatil jannatu bil makaari dafa am léebu ñu daan léebal mu tudd kumbam njullit ak sàmbam seytaane jamono ji réew mi di am ay léeb te television amagut ak whatsapp ñoom ak ñoom Facebook ñoom WhatsApp ak Facebook ñëw bëgg leen a remplacer te ñoom duñu lépp ñu daan lépp kumbam njullit wala omaram njullit ak sàmbam seytaane waaw omaram njullit ak sàmbam seytaane waxin la nag waaye sàmb yëpp duñu seytaane sàmb <laughs> mu seytaan la wax ñoom ñaar dañ daan tege ci aw yoon ci léeb wi jëm cib dëkk ñu ne omaram njullit dëkk bi mu jaar yoon wi mu jaar te jëm ca dëkk ba day xeex ba ba muy àgg waaye bu àggee rek duggaal jànn noppalu sa moom seetaan yoon wi mu jaar amul xeex amul dëkk amul dara amul doo daan waaye bu àggee ñu duma ko waaw bu àggee rek ñu dum ko gis nga am na suñ benn dëkkandoo bu ñuy wax mboq mboq ku lekk mboq ku ne war ngaa waaru professeur <laughs> xaw xam ni dara de waaye ku lekk mboq ku ne mboq mën na laa waar waaw ndaw ko daay lekk mboq xam nañ ci dara xam nga mboq li ñu li li ne ci pénc mi moo ci dàq solo mboq day tegale day solu mboq mën a solu tabarkalla dana jiital seulement teg ca débardeur teg ca tabarkalla tegaat ca tegaat ca ba li muy mujj mu sol ko ne du mu ne cell moom mboq waaye fu mu summi ko rek dugg ci taal bi ndeysaan mboq fu mu summi dugg ci bi dañ ko jàpp di ko summi di summi di summi ba mu set wecc nga teg ci taal bi allahu akbar mu ñor nga lekk mu néew tey te kenn gënu koo jot ay yére waaw yére mi léppam lay muur doo gis ci pepp wi dara mu tax yàlla kenn du moom <laughs> waaw xool nguur su neex del su ñox banaana rek moom it ni li muy sol ni muy tale te ni li muy sol ni mu tale noonu la neexee xol yi <laughs> ngeen baal mu yéen ndaw kundaay ala kulli xaal sawara ak aljanna nee na xujibati naaru bi shahawaat wa xujibati aljannatu bil makaari aljanna euh, la ko wër ay makaari la sawara la ko wër ay shahawaat la maanaam safara li ko wër lépp a neex aljanna li ko wër lépp a naqari mu seen ñaar yoon yu bokkut laa yastawi ashaabu naari wa ashaabul janna ñu ne ha ah, sunu borom ne waaw laa yastawi ashaabu naari wa ashaabul janna ashaabul janna humul faaizuun daañu ne law anzalna laa yastawi ashaabu asaabul jannati wa asaabul naari waaw ñoom ñaar yéemuñu bokkuñu programme bi tax saa boo leen sii ne ñu bokk bokk ñoom ñaar ñëpp xamal ne am na ca ku nax morom ja waaw xamal ne am na ca ku nax morom ja mu ngoog bu fi riwaaye li muslim xuffati ljannatu bil makaari wa xuffati naaru bi shahawaat waaw tabaarkalla sallallahu alayhi wa koy firil saaba yi mooy leen ba yàlla bindee aljanna daf ne jibril demal nga xool ko demal nga xool ko demal nga visité ko nga ñëw wax ma loo ci xalaat isaan jibril dem daa si na ko ay rabbi cey yàlla mu ne ko ah mu ne ko giñ naa ci sa tedd nga kenn du ko dégg lu mu dugg ca waaw maanaam kër gi nga nga nga liggéey muy aljanna ku ko dégg ci sab nopp xam ni mu demee lu too noppali mukk lu dul xanaa nga dugg fa mu def mu bind sawara ne ko demal nga visité sawara te ñëw nga wax ma mu dikk ne ko ay rab bi <laughs> ay rab bi xasiitu an laa yadxulaha ahad fii moom kenn du fi dugg fii kenn du ko dégg ba noppi du fi dugg waaw maanaam jàpp ñi dégg ni sawara mel samp nañ seenu xel ñi dégg ni aljanna mel samp seenu xel ñi dañoo fëx pour mucc ci aljan sawara ñenn ñi samp seenu xel pour dugg aljanna waaw tomb la bu am solo moo tax aljanna la ko wër dara neexu ci aljanna la ko wër sawar ko wër dara naqari wu ca professeur mu ñëw ci beneen tomb yonent bi ne kullu ummati yadxuluuna aljannata illa man aba ndeysaan allahu akbar mu ne sama xeet wi ñëppay dugg aljanna ba des ñi bañ sama xeet wi kullu ummati yadxuluuna aljanna illa man aba képp ku ma taseel jamono mbaa ma dem nga ñëw ñéppay dugg aljanna ba mu des ñi bañ hmm? waaw ñéppay dugg aljanna ba mu des ñi bañ xiila wa man yaba ya rasulullah ñan ñooy bañ dañuy bañ dugg aljanna wala dañuy bañ laa topp bañ gi mooy ñan mu ne xaala mooy leen man ataani daxal aljanna ku ma topp dugg aljanna wa man asaani faqad aba waaw ku ma mooy nag kooko moo bañ moo bañ dugg aljanna mbokk yi yàlla na nangul yonent bi topp ko ci lu ñu xam ak lu ñu xamut topp ko ci saahir ak baatin ndax nu bokk ci ñuy dugg ca kër gu neex ga te mucc ci kër gu naqari ga jërë ngeen jëf ci ànd beeg si defeem seen rajo ngi jéglu sëriñ si di jéglu soxna yi di ñaan jàmm ci réew meeg réew yi ko wër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 daal defal alxaaji sëñ Mbàkke Sylla mi nekkoon ci jataay bi ñaanal ko tawfiix sutura ak ak poche yu def dara niñ koy baaxu ji defee fajaru dimanche mooy ànd ak yéen ci min ku si sunna min ku si sunna di ay bind yoo xam ne ñu ngi koy jële ci sunna si yonent bi sallallahu alayhi wa muy trésor boo xam ne asahaba alkiram ñooñ ci doon déposel yi nuy waxtaane yépp waaw sahaaba ya te mooy ñëwaroon alayhi salaatu wasalaam gëm ko tabarkàlla te delluwuñ ca ginnaaw asahaba ridwanullahi taala alim ajmain ñoo ko daan wër muy waxtaan moom nag lu mu wax rek sahaaba yi jël ko lépp téere la xam naa wa maa yantiqu anil hawaa jooju alquran wax lu lu wér la ndax nit koo xam ne kii ñi nga toogal loo wax ñu jël ko boole ko lépp tudde koy addis sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi ci weeram nag waaw mu ci weeram di ko ci su suñu bindu tey professeur ci min kuno si sunna mooy tuyaabay jullee ci sàppe su njëkk si ak tuyaabay mottali sàppe sunu bi wees ñu ngi ko defoon ci tuyaabay julli ca waxtu wa waaw tuyaabay julli ca waxtu wa waaye tey ñoo ngi ci euh, sàppe su njëkk si waaw sàppe su njëkk si xam nga jàkk yi jàkk yi da ngay gis ku jóge këram di julli si bi ngay bëgg a jàpp seytaaneem mi ngi wut pexem nu muy def ba doo jàpp naan la ndox mi daa sedd ak jàpp teel naag sa tànki day weex ak da nga bàyyil ba tekki fuddan séeg héehée dangaa dangaa puudaroog bàyyil ba puudar maanaam lu ne seetaan dana ko def fexe ba doo jàpp il est fort waaw lu ne dana ko def fexe ba doo jàpp waaw su su fexee fexe fexe munu ci dara ba nga jàpp nga bëgg def ñaar rakk mu la jaru ko ñu ngay liqaam mook yow boo doo def ñaar rakk bu jàppee ba noppi soo ko defee mu xam ne rëcc na boo génnee dem ca jàkk ja aha mu indi obstacle yi bëgg nga dëpp naa la yow yàlla taxul ngay dem jàkk ja yow nii ki ci naa waa xanaa déggoo ñooñu li ñuy wax xoolal ñee la ñuy wax xool accident bi xool mook yow ba ba léeg leeg sax mu yebal jenn waaye mu dajeeg yow ne la yaa ñaaw waaw rekk seytaane yàgg moom ba nga ko boo dugg jàkk ji mu bëgg nga dugal sa tànku càmmoñ boo duggee bëgg def ñaar rakk mu bëgg fexe ba doo ko def ngay fay sa téléphone mun la jërul fay ndax léegi tey ministre bi walla léegi tey ministre bi woo la jërul fay nga ne ci julli gi sa xel la ci portable bi ndax leen ñu woo ma bu ñu jàkk ji it mu bëgg la taxawal sàppe soo xam ne bokkut ak si nga war a taxaw nga gis kuy dem jàkk léeg-léeg du la may nga dugg jàkk yi ci bitti ngay nekk wala nga nekk ci ginnaaw bokk ci benn sàppe yooyu yëpp ci ay liggéeyam la bokk waaye ku yàlla yónni woon alayhi salaatu salaam lim nu wax ci sàppe si lim nu wax ci sàppe si bu nu ko déggoon sunu sàppe si du mel nii mu mel demal ci jàkk yëg jumaa yi rek nga xool sàppe yi allahu akbar rekk sa yaram daw ndeke sàpp yi warte mel noonu yonente bi daa wax ne law yaalami nnaasu maa fi nida wa safi l awal thumma lam yajidu illa an yastahimu aley lastahammu muttafaqun ali nee na bu waa dakaar xamoon wala waa senegaal wala nit ñépp bu ñu xamoon li ne ci noddu kenn du ko bàyyi sa morom bu xamoon li ne ci noddu kenn du ko bàyyee sa moroom xanaa mi xanaa ministre de l'intérieur àtte leen <laughs> waaw ministre de l'intérieur àtte leen yal na ko yàlla yokk wér nee bu nit ñi xamoon li ne ci noddu. kenn du ko bàyyi sa moroom ah waaw waaye fi ne nun jàkk jàpp nañ rek jenn waaye lu ñu jël rek muy nodd léeg-léeg mun na ci dem yëbba ba nodd jot mu fa xasee loxoom dem nodd door dem jàppi eway eh daw waaw moo tax nodd yi léeg-léeg du àgg ci xol yi bu fekkee nun lay demee waaw nodd yi léeg-léeg du àgg ci xol yi bu fekkee nun lay demee waaye yu nu taal nee na bu ngeen xamale ne ci nodd kenn du ko bàyyi sa moroom isaan nettali woon naa leen sunu bilaalu jàkka ji góor ga aatuloo waaw waaw daan nodd ba sa Ahmed Dame Ndiaye seeti ko waaw mu jooy jooy wi réy ne ko duutu man nodd ndeysaan sax daam ne ko ah man naa am duutu nodd de waaye yàlla ngay def ku lay noddal ba baa yomal xiyam ndax ak tëli la ko te def rekk góor ga jooy ndeysaan waaw bu nit ñi xamal li ne ci noddu kenn du ko bàyyi sa morom waaw mu ne loolu benn la bu ñaar bi bu nit ñi xamal li ne ci sàppe su njëkkit kenn du ko bàyyi sa morom ah mu ne maa la ko wax de mu ne kon saa bu ngeen di ñëw ci jàkk ji bant ngeen di indi ngeen tegoo bant ku sa bant génn yaay nodd ku sa génn yaay ni sàppe su njëkk si allahu akbar waaye nit ñi dafa mel ni xamuñu addis boobu ba lu jàkka ji fees lu jàkka ji yaraax-yaraax nga ñëw taxaw ca ginnaaw léeg leen nga dégg kuy jot li naan dem leen ca kanam moom nag moom ma nga ca gannaaw waaw dem leen ca kanam nu mu gën a fees rek gën a baax te kat moom ma nga ca ginnaaw moom daa war na sus ci imaan comme day jot li waaye déedéet ca ginnaaw lay nekk waaw nga xam ne li muy jot li nit ñi ñoo ko gën a jot mbokk yi addis boobu nañ ci taxaw nu ko settantal dañ ko xool bu nit ñi xamal li ne ci noddu kenn du ko bàyyi sa morom waaye bu nit ñi xamal ne ci sàppi su njëkk kenn du ko bàyyi sa morom la leen di àtte mooy tegoo bant waaw maa fi taxaw doo fi taxaw maa fi taxaw doo fi taxaw bañ tegoo bant ko sa bant génn ñu ne kon yaa fi taxaw kenn ka taxaw deuxième sàppi waaw waaye tabarkàlla léeg-léeg nga ñëw doo fekk kenn te kenn du fa nekk bokk na ci yooyu mbokk yi ci sàppe seeg mottali ko mu ne inna allaha wa malaikata yusalluuna ala mayaamini sufuuf wala ala sufuufi awal mu ne yàllaa ki malaakaam ñi ngi ñaanal ñi jullee première sàppe ñiy julli ci première sàppe yi première sàppe deuxième jàpp troisième bu fekkee ëpp na fa nee na yàllaa ki malaakaam ñi ngi ñaanal ñooñu inna allaha wa malaikatahu yusalluuna ala sufufi l awal aw yàllaa ki malaakaam ñi ngi ñaanal ña nekk ca sàppe su njëkk sa waaw rawahu abu daawud abu daawud nettil na ko kon ndekete ki ne ci sàppe su njëkk si julli plus lay am julleeg dara am julli gi ba noppi am ñaanu malaaka yi am ñaanuk sa borom subhanahu wa ndax danga jullee ci sàppe su njëkk yi mbokk yi maa ngi ci sàppe si ndax maa ngi miin ku nuu si sunna ni ñu koy defee fajaru dimanche sàppe soosu alayhi salaam da caa wax ne sawu sufuufakum fa inna taswiyata su saffi min tamaami salaa sawu sufuufakum fa inna taswiyata saffi min tamaami salaa waaw yemal leen seen sàpp yi yemal leen seen sàpp yi ndax yemalay sàppe ci julli gu mat la bokk yemalay sàppe sàppe soo xam ne si baaraami baaraami sànq lañu dañoo tolloo mbagg yi tolloo biir yi tolloo waaw biir yi tolloo waaw la daloon yonente ba ca sàppe sa di jubbanti rekk ba séen koo xam ne kii biir ba tabarkalla daa génn waaw daaw ko lim añ dafa ëpp ba biir ba génn nar a yàq sàppi si ci def ñëpp seen biir marché yonent bi ñëw ba ci moom daal di teg baaraamam ci biir bi ne ko demal deuxième sàppe ba troisième daal xool ku biiram maase ne ko gaaj sàppe si ci kanam mu néew ku ko defoon Dakar tey ñooñu seen jikko dafa baaxoon ba kuñ ko def waaye bu doon dakaar gi dangay ngay gedd jàkk ja génn te wax yonent bi lu kenn dul wax maa la ko wax de tey fi ne bu ñu doon sàppi nii Oustaz Ahmed Dame Ndiaye def ko kenn ca masjidu nuur boobu moytuwul de <laughs> allahu akbar waaw waaye ñoom dañoo defaru woon yonent bi teg baaram ci biir bi ne ko demal deuxième sàppe mbaa troisième waa ji daal dem deuxième sàppe mu xool ci sàppe soosu kenn ne ko kaay première sàppe kenn ku ci nekk la la yuntu bi def déranger wu la waaye bu doon nun sëriñ bi na la demal deuxième sàppe ah jàkka ja ngay génn jël say dàll boole ci di xultu ba tabarkal la ak di jël say commentaire foo waxtaanee wax ko waaw rek moo tax defaru defaru lu am solo la waaw xissa bi day jàngale ne saxaaba dañoo defaru woon kon nag sawu sufufakum ñu ne màkk da nga gis rek iliman taxaw daane sawu ndeysaan rek gaa yi jubbanti ko waaw le policier ba waxoon ndeysaan lu iliman wax ñu ne daf ne nañ jëm mu ne moom rek lay wax ñu ne waaw amul ay dóoree ko defee ñu ne mukk fi amul loolu ndeysaan naa lii de kon dëgg la mu ngoog sàppe yi alayhi salaatu salaam waxaan na ci beneen la tusawwunna sufuufakum aw la yuxaalifanna allahu bayna wujuhikum aw kama xaal da ngeen yemale seen sàppe si wala yàlla féewale seen jëmm yi waaw sàppe si ci jàkka ji bu yemoowut sàppe si ci dëkk bi du yemoo sàppe lu am solo la waaw sàppe lu am solo la ba demee ci fi ñuy jële xaalis ci banque yi wala nga dem fi ñuy faye courant wala fi ñuy faye ndox da nga xam ne sàppe lu am solo la waaw léegi tubaab bi da koy def sax ay numéro boo ñëwee jël jël treize kii jël quatorze kii jël quinze ba baa muy àgg ci ay téeméer machine bi bu la woxee nga dem mu woo ki la nga dem moo tax buuxante xaj xaj du fa am waaye xam na réewu Japon moom jarul muy am loolu waaw pas mort réewu Japon ja jarul muy am loolu ndax ñoom dañoo tubarkal la kenn mësu koo gis rek waaye sàppe am na solo ba demee ci oto yi gare routière yeeg yooyu boo ko laajee ñoom góor a xuma yàlla yàlla yokk ko dañ naan kii mooy premier car bu chargé ba noppi deuxième car ñëw bu chargé troisième car ñëw sàppi soo su ñuy def première car deuxième car troisième car daa am solo lool lu ko may pëccëxoo am lu ko may xeex am moo tax ña ko fay bàyyi maroode ña ngay tooñ ña fay bàyyi sàppe si marode ak yooru <laughs> marode am na yooru am na bis boo duggee oto bu yooru mbaa muy marode nag ñàkk nga say àq ndax àq yaa ca sàppe sa bi nga bi nga duggee oto buy marode mbaa muy yooru nag tabarkal waaw moo tax oto yii di ramasser ci dëkk bi oto yii di ramasser ci dëkk bi tey am ay numéro am ay numéro bu ci romb ñaari ñun suñu réew doo xool ci ginnaaw xam ban moo romb loolu nag bu dee ci réewu tubaab ñoom duñ ko def réewum tubaab kaar bu fekk mooy treize dañuy bind ci côté droite bi treize bi bind ko ci côté goos bind ko ci ginnaaw nga xam ne bu la rombee dem da nga xam ne bee moo ma raw kon naa xaar bii waaye ñun suñu kaar yi bu la xas woon ginnaaw doo xam ba ban la xam naa monsieur le directeur <laughs> directeur yooyu bokk hmm. directeur avec S maanaam yi jiite yooyu xanaa danañ ñu ci bàyyi xel defal nu ko ci ginnaaw ndax sàppe daa am solo lool nga xam ne oto bee dem ne mooy treize kon naa xaar treize bi ñëwaat ndax du yàgg wala comme treize jàll na naa xaar vingt deux wala naa xaar nangam nga xam c'est-à-dire information boobu dafa am solo nag sunu kaar yi duñu ko def bu la rombee wéy doo xam bee dee bay dem ne bu mu doon nga jaaxle boo taxawee xam ne fii quatorze ak dix-huit ñoo fi quatorze ak treize ñoo fiy jaar boo xamee ne bay dem benn bi la da nga xam bii ñëwaat bu mu ci doon ak boo ci soxla ala kulli xaal mu ngi noonu macha allah sàppe daa am solo lool na ñëpp yi sàppe noonu nag léeg-léeg nga ñëw ci bitig bi wala nga ñëw ci barab bi taxaw am ku ñëw yoor loxoom maanaam ndaw kundaa bi daa ñëw ci bitig bi <laughs> waaw di jënd mburu morom ja fekk fa ni mu taxaw daal jàlloo jaay ma kafe doo bàyyi ba mu jaay kii ba pare déedéet da nga leen dugg rek moo tax ndeysaan nun sunum réew ñàkk a tàmm loolu tax na bu nu demee màkk di am ay problème waaw fu ñu ñëw sàppee ñun duñ sàppe bañaax rek dugg waaw sàppe daa am solo lool te ci julli gi lañ koy jànge ci julli gi lañ koy jànge waaw ñun ñëpp ñu rojj ci ginnaaw kenn mu tudd imaam mu ne rojj taxaw ba mu yàgg rek mu mu sëgg jàpp ci óom ya daal ni allahu akbar nun tam nu sëgg jàpp suñu óom ni allahu akbar mu ngoog loolu ama am solo la ci euh, ci sàppe waaw lu ama am solo la ci ci sàppe alayhi salaatu salaam waxaat ci beneen hadis ci buntu boobu ba tey hadis boo xam ne bii euh, atabaraani nettali na ko mu ne man sadda furja rafaahu llahu biha daraja wa bana lahu baytan fil janna ah waaw waaw allahu akbar loolu kat am na solo waaw loolu kat am na solo dafa ñëw ci sàppe si fekk diggante móor xujaag bàcc am na ko fi mën a dugg mu dugg fa loolu mooy sàddu furja ñëw nga fekk ñaar ñi ngi julli diggante móor xujaag bàcc am na ko fi xeej nga dugg fa nee na ku def loolu ku def loolu yàlla yëkkatil la sa daaja muy benn tabaxal la kër ci aljanna ja ah waaw dangaa fekk ñuy julli nga seen diggante boo mën a dugg moo tax boo seetloo ba demee Makka bu ñu dee julli bu ñu li xàmme bu ñëpp jóg taxaw place de bari nit ñëpp wàbb wuti kanam waaw léeg-léeg boo la leeg sa sa seytaan la ah, taxawal ci sa jaadi ga daal li fekk ci fekk na déedéet bàyyi fa sajjaada ga dem ca ca sàppe sa ca kanam moo gën wala dem sàppe sa ca kanam moo gën taxaw ca sa sajjaada gi ndax di dem jàkk yóbbaale sa sajjaada léeg-léeg boo ko lalee lalli ko jëm ca kanam daf lay jafe wala bàyyi fa sajjaada ga daf lay jafe wala wala wala wala ala kulli xaal ku seen diggante boo mënee xaj ci julli nga dem dugg ca duggoo nga ci dugg yàlla yëkkati na daraja waaye tabaxal na la kër ci aljanna ja tey soldaar yi bu ñu dee maaj wala gendarme yi mbaa alkaati bu ñu dee maaj ku génn gisal ni ngay yàqee sàpp si bu ñuy maaj seen mbagg yi dee tolloo ñu ñuy wiccandoo seen loxoom ndeyjoor wiccandoo bu góos waaw wicc bu ndeyjoor ndeyjoor yëpp jóg ñu wicc bu góos góos yépp jóg noonu lañuy ñuy doxee ñoom ñoom ñoom soldaar si tànk yi ànd loxo yi ànd tabarkalla ñu sol lu niroo hmm? waaw ñu sol lu niroo benn tëni waaw allahu akbar loolu ñuy def ak niñ koy defee jullee ko dàq julli moo ko dàq moo tax alayhi salaatu salaam wax loolu ku séen ab diggante ci ñuy julli nga dem dugg fa tabarkalla professeur alayhi salaam daal di jeexal sunu bindub tey bi nu jeexale ko ci mooy daa wax ci addis boo xam ne imaam ahmad nettil na ko abu daawud nettil na ko mu ne aqimu sufuuf wa xaazu bayna al manakib wa suddul xalal wa liinu bi aydi ixwaanikum wala tadaru furujatin li sheytaan wa man wasala saffan wasafa wasalahu llah wa man qataa saffan qataahu llah ci waaw mu ne jubal leen sàppe si yunu tubaay wax jubal leen sàppe yi na sàppe yi jub wa haazu bayna al manakib waaw ngeen tollale mbagg yi allahu akbar jubal leen sàppe yi tollal leen mbagg yi kenn ku ne sa mbagg sës ci sa mbaggum moroom waaw gaa yi wax ne gaa yi dañ daan julli boo xoolee seen mbagg yi ci seen yére yi moo njëkka soppeeku ndax tañc tañcant bi waaw tabarkal mu ne wa suddul xalal xalal mooy yi ci diggante aji julleeg aji julli waaw sàppe si bu sàppe un ñëw ñu def quatre quatre mètres jàpp cinq door def deuxième mukk loolu rafetut diggante sàppe su njëkk seeg su ñaareel si daa loo xam ne bu gaa yi su su jootee daanaka seen bopp yi di laal tànki ñee noonu lañ ko bëggee waaye mu teg ci lu am solo wa fii bi aydi ixwaanikum wa liinu bi aydi ixwaanikum ne na ngeen nooy ci seen loxoy mbokk yi leen di jubbanti waaw na ngeen nooy ci seen loxoy mbokk yi leen di jubbanti mooy boo taxawee fekk da génn benn waaye teg la loxo di la jëloo ginnaaw nangul bu fekkee da génn jëm ginnaaw benn waaye teg loxo ci ginnaaw puus la pour nga jëm kanam nangul nangul de loolu lay waliinoo waliinoo bi ay di ixwaanikum nangu leen waaw nangu leen wala tasaru furujaatin li shaytaan mu ne bu leen bàyyi ay diggante ndax seytaane ndax seytaane bëgg na bu ñuy julli ñu bàyyilu ko diggante ndax moom mu bokk ci julli gi bu diggante amee rek seytaane bokk si mu tax su bokk see soo seetloo kim dendal daf ko wax naan yow gis nga kii sa kanam nii mbubbam mii dey ñaari semaine ni moom lay indi loolu la seytaane bëgg wan ne la xoolal ki sa ndeyjoor ni façon bi muy jullee xoolal ki buy sëgg ni muy sëggee xoolal buy sujjóot ci ni muy def seytaane ci loolu la lay nekkal ndax lan dañ koo bàyyeel benn furja mu ñëw ci di liggéey bu amutoon loolu nag du ko mën wa man wasala sàffan wasalahu llah ku jokk sàppe yàlla jokk waaye wa man qataa ku dog sàppe yàlla dog la ku dog sàppe yàlla dog la kon nag nañ jokk sàppe si bu ñu dog sàppe waaw génn ci sàppe dem walla jullee fu amul sàppe mbaa yow dong ca ginnaaw yooyu yëpp nañ ko moytu fexe ba sàppe si jub tabarkàlla ñuy dem ci jàkka ja tey àgg ca fa sàppe say nekk tey bokk ca sàppe su njëkk sa tey bañ a bàyyi benn diggante suñu diggante sunu suñu moroom bu fekkee noo ngi julli sàppee nga noonu mbokk yi ci min ku noo si sunna waaw min ku noo si sunna trésor boobu saaba yi dencal yu am solo yu ñu fa dencal tey nag foofu la ñëwoon tabaarakallaahu jërë ngeen jëf ci ànd beeg Sud FM seen rajo di jégalu soxna yi di jégalu sëriñ si di ñaan jàmm ci réew mi réew yi ko wër ak sëriñ fa yëkk te jataay bi ndax suñu mbokk yi xëy ci xibaar yi ñu ngi nii taxaw yor seen i këyit bëgg leen a firiñ fàncal xibaar ci tubaab firiñ fàncal nu ko ci wolof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 waxlul uqdatam min lisaani yafqahu xawli bokk ñu déglu asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu asbaxnaa wa asbaxa almulku lillah walhamdulillah wa laa ilaha illa allah wallahu akbar allahuma inna nasaluka xayra ma fi hada wa xayra ma baad wa naudu bika min charri ma fi aslam wa charri ma baad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 ñàngal ko tawfiix sutura ak teraanga ak poche def dara tabarakallahu jégglu ci ay bis gi génn nga xam ne li nu bokkoon jàng moom lañ bokk jàngaat te ñoom professeur ji bi ko tuddee rédivision <coughs> ndax yi fi xewoon nag yu ni demee waaye xam ngeen ne noo ngi doon teg sunu baaraam ci yóbbal politiciens yi laaj réew mi yóbbal ki yor réew mi yóbbal ñun ñi nga xam ne ñooy jël réew mi teg ci loxo ñun ñépp yóbbal yooyu nag kenn rekk moonu mën a jox yóbbal yi mooy ki bind àdduna binduñu ba pare di coordonné sunu digganteeg àdduna sunu digganteeg àdduna muy natiix bi borom bi bëgg koo coordonné ba jàmm am ndax coordination yu boobu bu amut àdduna mën naa dem bàyyi nu walla nu dem bàyyi ko te kaar bi su demee bàyyi la walla nga dem bàyyi ko benn du ci neexal ab tukki te dañoo wax ne dañoo bëgg a dem ci développement walla ci beneen langage bu bees émergé moo tax ki nga xam ni moo bind àdduna bindu nu bu nu complexe te bàyyi ko xel bu coordonné sunu digganteeg àdduna nu ànd ak àdduna dem yasaluhu man fi samawati wal ardi kulla yawmin huwa fi shaan fa bi ay alaai rabbikuma tukazibaan coordination yooyu boobu pour mu am nag mu jox ñu benn téere benn téere benn document bu baax te mag daal di benn ingénieur bu ñu wax Muhammad sallallahu alayhi wa bu xam li muy def te man ko mu ñëwoon fi jamono yi laqad jaakum rasulun min anfusikum ingénieur bi ñëw na ingénieur bi ñëw na pour mu kor coordonner seen diggante ak àdduna moo tax candidat yi nga xam ne ñu ngi tàmbalee déposer seeni liste ak weccet wi ñu leen di laaj nga xam ne parti mat na ñetti téeméer mbaal lu topp ñooñu la borom bi subhaanahu wa bëgg yóbbal nun tam mu yóbbal nu waaw nun ñi ñun ñiy dénkaani réew mi xam naa dinañ ci ñëw ci waxtaan yëla ca kanam waaye li kulli maqaamin maqaal waaw eh, ñu jëloon aw saar wu am solo di ñetti saar yu feeñ ci wàllu jàngale pénc nam la euh, xasas ak këf wala këf nam loo xasas waaw borom bi subhaanahu wa taala di jàngal waaye di ko jàngal kim yónni woon ingénieur bi mu doxaloon fii ba samp fi li nga xam ne bu yàlla ne lii la alxuraan indi théorie bi sallallahu alayhi wa indi na pratique bi ndax bu leen fàtte ne samp na état ca Médine ni état war mel la meloon waaw di doxal ni état war a doxale ak ña ci war a nekk ci ay ministre moom état ba mi ngi nekkoon quinze ministre waaw limaloon naa leen ministre ya kero ca gàmmug Iran ndaw woon ca Thiès yàlla na ko yàlla yokk wér <laughs> waaw limaloon naa leen ministre yi quinze ministre la état bi yonent ba tolloon te quinze ministres yooyu du rek Madina déedéet mooy mbooleem jullit yi ci kaw suuf ba ba adduna yi tukki quinze ministres yooyu rekk la ñuy soxla ay vingt ki jàpp quarante ëpp na cam njàngaleem salawaatullahi wasalaamu alayhi ma ñëwoon maak yéen ci benn chef de bu ñu wax Souleymane bi nga xamee ne euh, màndaam président Daouda jeex na Souleymane moo jël waaw bi nga xamee ne màndaam Daouda jeex na waaw la Souleymane jël déggoon ngeen discours politique général bi mu defoon waaw tabarkàlla yaa ayyuha nnaas ullimnaa mantiqa tayr wa uutinaa min kulli shay inna haada la huwa alfadlu almubin discours ba jeex seet waaye wa uutinaa min kulli shay in jeeg dikkaloon naa leen ci mooy kuy laajum réew bul mel ni kuy teggi tontin bàcc siis moo koy wax de waaw ci wax sa xalaat <laughs> waaw bàcc siis moo koy wax de wallaay yàlla na ko yàlla yokk wér moo ngi waa këram a daaru gépp tabarkàlla wa ootinaa min kulli shay'in daa am solo ci pénc di laaj réew mi te yor lool tax na doo soxlaal réew mi lu ko mooy këpp keesu yomb la tabarkalla yaag saw gaay yàlla bu mu nu dal bu yàlla leen dal ñu ñëwoon ci Suleymaan ak xorondom nga ba noppi ci ñëwoon nag ci Suleymaan picc ma ndax chef de l'état boobu ñu wax Suleymaan bi nu ko yàlla jàngal alxuraan ak méthodologie bi muy doxal wax ne watafaqada tayr tafaqada tey dafa xëy moom Suleymaan def benn tukki tukki boo xam ne euh, dafay dem ci ñi mu yilif moo xam bu économie la ko tuddee walla bu social walla bu environnemental waaye daal tafaqada wa tafaqada tayr maanaam bi mu jeexalee ci wa tafaqada naas <laughs> waaw waaye sunu borom sunu boroom du def ni théâtre kat yi di def déedéet nga xam ne épisode par épisode la sunu borom day wax daara rek la ca des lépp sunu wajur wa sëñ Mansour al Khalifa boroom daara ji ndeysaan nga xam ne fan yii nu nekk ci la nu tàggoon ci at yële waaw nee na boo tiimee alxuraan te xàmmewoo mantuux ak mafhum doo dem naa mu ne maa ko wax dafa am mafhum ak mantuux mu ne mantuux mooy yax bi wax mafhum mooy ki tiim yax bi lam ca xam moo na ko daan jàngal mu ne bi mu ne wa tafaqadu tayr loolu mooy mantuuq Suleymaan xëy na ma nga ca picc ya ñu ne kon lim ci déggee mooy noppi na ca muus ya noppi na ca kaña ya noppi na ca fas yaa xar yaa nag yaa bëy ya nee na waxuma laa nit ñi léegi nag mu ngi ci picc ya mu new waaw borom daara ji <laughs> bu noppee ne la ma demam nga ne ko doxal rekk mu wéy ndeysaan cëy rahmatullahi alayhi wa radi anhu rahmatullahi alayhi wa radi anhu ala kulli xaal Suleymaan ak ci picc yi bi mu ñëwee ci picc yi fa la fekk ràmmatoo fa la fekk ñoom maam suub ñoom Musa njuburi mi ñuy bëgg waxtaane ñoom baaxaañ ña nga fa ñoom maf ñoom lipaaxoon ñoom céeli ñoom baqaar ñoom ndeer waaw yaa bokk di picc yi waaw ndeysaan yéen ñi nga xam ne yéenay dem ci park yi xam ngeen ci dara xeeti picc yi lu bare bare bare la waaw Ali Haydar daanuñu ko jàngal ba mu yore environnement waaw yal na yàlla yokk wér mu yore environnement yal na ko yàlla yokk wér xeeti picc yi te picc ñi dëkk Saalum xam nañ ne lu yéeme la ndax picc yi dañuy dañuy dañuy màng waaw immigration clandestin picc yi dañ koy def waaye daal Suleymaan ma ngi ci picc ya picc mu ne jaar na ci yow mbaa xiifoo mbaa maroo naka soxna si soxna si mu ne ko naka sëñ bi rek moom picc ya mu ne aw loolu li ci chef de yi war a jànge ñiy laaj réew mi ñi ko yor ak nun ñi leen koy dénk mooy kuy kuy luñ picc di laaj la ñu nekkee nit ñi waxi noppi waaw ndax bu ëllëgee yowmal xiyaamati ku mas a yor réew mi période bi nga ko yor sa mandat période bi nga ko yor lu fi xiif yàlla laaj la ko lu fi mar mu laaj la ko lu fi rafle mu laaj la ko lu fi tëdd biti mu laaj la ko ndax yàlla day def cim réew lu tax du ñu rafle du ñu mar du ñu tëdd biti du ñu xiif réew mi yàlla sàkk def na ko ca dinaa wax sëñ Mbàkke si la yàlla na ko yàlla yokku wér bu fi avion bi départ ñu aji Makka ñu aji Makka imaam alxaaji alin alin alin Ablaay Ndaw waaw <laughs> ne ci avion bi danañ ko jox mu añ wala boog ndékki danañ ko jox mu añ danañ ko jox mu reer daañ ko jox ndox jox ko jus jox ko ataaya yëpp dañ ko ko jox te mi ngi ci avion bi nuy dem li feeg nuy wàcc waaw muy yéen yàlla nag bind àdduna mu départ ci barab minal maadumi jëm ilal adam waaw nu defee ne yàlla moom dana fi wàcc lu doyut yàlla ne bu leen ko xalaat mukk ñi prévoir tukki boobu ci avion bi li liñ ci def mat sëkk maa leen ko dàq wa ma min dabbatin fil ardi illa illa risquha amul kenn ku yëg sama avion bii di àdduna man yàlla waaw lu dul ma yor sa wërsëg nit ñi séddalee moo baaxut ndax otes yi ci avion bi buñ jëloon lépp teg ko ci kanam alimaam imaam lay Ndaw kon yeneen passager yi du nu lekk waaw séddali bu féetewul boor rek ñépp jot ci waaw moom la yàlla wax wa in tauddu niamatullahi la tuhsuha waaw allahu akbar waaw Suleymaan kon ne ci picc yi xam ne responsabilité bu mag la am waaw picc mu ne mu dem ci ñoom ba àgg ci picc ma Moussa Njuburi gisu ko mu ñëw gisul Moussa Njuburi waaw nun la nun la picc ma tudd Moussa Njuburi daa am aw jubbu ca bopp ba fa qaala maa lii laa aral hudhud am kaana min al man la lu tax gisuma Moussa walla boog dafa dem te tàggoowut waaw kay lu tax gisuma Moussa walla dafa dem te tàggoowut kooku ministre yi dana leen concerné député yi gouverneur yi haut conseil conseil économique social environnemental préfet yi sous préfet yi daf leen di concerné mooy tàggoo door a def walla tàggoo door a dem def walla tàggoo door a picc mi nag dem na ti tàggoowut comme amul ordre de mission waaw Souleymane di jël nag benn décision pini bu mu war a teg picc mi mooy rey ko walla boog duma ko mbaa rey ko wala mu indi lay wu leer waaw Souleymane en tant que mu indi nag walla mu indi lay wu leer cest à lay wu leer bi bu ko indee bu ko convaincre lim jàppoon dina ko bàyyi waaye bu indiwut lay wu leer wu ko convaincre dana ko duma duma yu métti walla mu rendi ko loolu la wax gis nga foofu tam ku dul déglu sa sa peuple ñaare ngir nga am sultaan mu biin du lay yomb ndax da nga leen di may nopp may nopp gi it nopp bi bul ko dëngal kenn bul ko dëngal ñenn dëngal ko ñëpp ndax ñëpp bokk nopp bi waaw moo ko ween ñooyam moo ko ween ñooyam ci ko am ay seex <laughs> ci ko am ay seex ngeen baal ma mbokk yi mu ubbi fa benn parenthèse <laughs> ba daal daa am jenn waay ju dëkk fële ca Saalum am ay seex <laughs> ceetetet seex bu góor ak bu jigéen mu dem jël bu góor ba tudde ko Alioune Sall jël bu jigéen ba tuddee kon ko yi mën a ko aw <laughs> seeteet kenn su ko gis rek maa ngi nogay nee naa ko nag indi nga problème <laughs> ndax sa seex yi boo may tudd jiboo mu ne ma wax ngaa yi ma ne ko waaw parce que su ma bëggee nàmp man sama <laughs> seeteet mbokk yéen sax xam ngeen li ma bëgg a wax waa daal ay seex la am bu góor ak bu jigéen bu góor ba Alioune Sall bu jigéen ba yi mën ne ëw mu ne ko baax na <laughs> en tout cas maa ngi Nogay danañ leen danañ leen seet si waaye xam naa ne ñaari seex yooyu yaakaaruma ñu juboo ndax bu bëgg bu Nogay bëggee nàmp li ma bëgg a nàmp danaa ko wéq <laughs> maa ma jàpp noppam mbaa ma siiw ko ala kulli xaal <laughs> kenn mësu koo gis rek waaw kon yaay ji seex ku ñu joxum réew moom nga war a doon Suleymaan nee na ak lu mën a jàpp bu Musaa ñëwee Musaa Njuburi bu ñëwee bu indee layu leer nee na moom en tant intellectuel en tànk ku xam jamono xam réew xamum pénc su ëndee lay ma mën a jàpp man li ma jàppoon dama koy bàyyi jàpp ca lay lu am solo la lu am solo la mu tax justice cim réew ñu bëgg moom boppam nga xam ne njabootu ku jiiteem réew ki jiitewul réew ñun ñëpp nooy bokk ci ween wi yem ndeysaan waaw waaw am na solo lool am na solo lool Suleymaan nee na Musa njubur daal lii koy musal mooy mu indi bi sultaani mubiin waaye su ko indiwut la uazzibannahu azaban shadida aw la asbahanna mbokk yi sunu borom subhanahu taala mi coordonné diggante nit ak nature bi te waxoon naa la ca sunu waxtaan wële ca ndar ca mbarigo dafa am lu ñu tuddee science am lu ñu tuddee l'homme am lu ñu tuddee nature am lu ñu tuddee Dieu professeur bu ñeent ñi àndul adduna ju jag bu ñeent ñi àndul adduna du jag yàlla nit ki euh, natiir bi xam-xam bi bu ñeent ñii àndul léeg-léeg nga dem ci pénc nag ñu ne nun ñett nañ ànd te bàyyi fi yàlla <laughs> waaw léeg-léeg nga dem ci pénc lu lañ wax nañ nun ñett nañ ànd te bàyyi fi yàlla parce que nous sommes laïcs nan tabax pénc moo xam ne yàlla du ci bokk yàlla ne dox leen Sëriñ Cheikh nee na moo tax kero ba ba gaa yi di tabarkal la dal ci Hitler waaw nee ginnaaw def ni yàlla faatu na nee na buñ koy dóor kenn du ko àtte ndax bu bu fi yàlla nekkee àtte ko waaye yàlla doxal logique gu nee ngeen nekkuma fi kon naa seetaan ba ngeen xam ne tabarkalla ngeen ne ma nekk fi moo leen gën a jig ci ngeen ne nekkuma fi ndeysaan Suleymaan toog sunu borom ne fa makasa gayra baid yàggut yàggu dara yàggu dara rek musaa ne jeef waaw dara musaa ne jeef wax na leen bu picc bu picc doon ñaq dafa agsi ku ñaqam waaye yaakaaruma ne picc dana ñaq waaw yaakaaruma ne picc dana ñaq fas nag gis naa moom muy ñaq waaw waaye picc moom mu ne dana ñaq ñi ma ci tane ñu dimbali ma ci ñaqu picc <laughs> waaw jeef Suleymaan xool ko mu xool ko Suleymaan faste kanamam xool géej waaw laaj paaka aku buum mu yéen Moussa Ndioumbéri loo loo ci doy buum waaye daal laaj paaka ak buum lisaan fas ko yéenee mbugal mbugal mu metti daal ne gaa yi fi ngeen xam xorondoom ñu ne ko barab sàngam mu ne Moussa Ndioumbéri dama lay soqi ba nga set teg la ca xorondoom la yéen ñi nga xam ne xam ngeen xorondoom bu ñu suqim picc ba mu set teg ko ca allahu akbar mbugal googu dara gënu ko métti ba xorondoom yi song la ndax xorondoom bu ñu amee benn corps étranger bu ñëw ci ñoom ak koo mën a doon bu ñu bu ñu la songee sonal la mbokk yi benn bind ngu noonu bu jëm ci noo pénc mi ak ñee laaj pénc mi bu jëm ci ñoo pénc mi ak ñi pénc mi bind ba am solo bu yàlla jaarle ci ku ñu wax Suleymaan ba mu jëlee pouvoir ba ca Daawuda ba def discours ba ba jaar fi mu jaar ba agsi ci diggante ak Moussa waxtaan wi jeexut dañoo ak suñu koor yëkkatee bu leen neexee ci kanam tuuti ngeen woote ci 88 628 98 98 ñu ànd ci suñu jataay bii am lundi di am mardi di tàmbali 8 di jeex 10 ñu fay laajante laaj yi nga xam ne xataayu antenne bi léeg-léeg dana tax dugg laaj ko du du yomb sunu mbokk yi xëy ci xibaar yaa ngi nii taxaw yor seeni kayit bëgg leen a firiñ fàncal xibaar ci tubaab firiñ fàncaloon ko ci wolof ñaan leen yàlla ñoom ak yéen ak suñu technicien bii di sànni wax ci jaww ji ba ngeen mën koo dégg waaye ak suñu sponsor yi nga xam ne am nañu xorom lool ci ci ci ci euh, émission waaw ñoom C3S ak gaa yi ànd moom in uridu illa al islaha ma tataatu wa ma illa billah yàlla na yàlla defar seeni mbir defar suñuy mbir ci def ci suñuy poos dara wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu